xam nañu ci ci wolof rek xam nañu sa yéene ci naka lañuy def ba Sénégal moom boppam rawatina ci li joge ci mbay meeg càmm gi ginnaaw bi nga visité stand yi ci yan levier nga bëgg a sukkandiku ngir doxal politique bi nga bi nga xam ne moom nga bëgg Sénégal moomee boppam. waaw damay njëkk di njëkkee di sant yàlla d' abord ci nu ma mayaatee ma ñëw ba fiara bi ndax daaw amoon naa gàllankoor yu taxoon mënuma woon ñëw waaye at guddee euh, dama doon ñëw ci fiara bi te du ci fiara bi kese parce que fii am na yeneen exposition yi fii am soit des def ko soit Salam Adam def ko avec le Saladam parce que ñu bëri ci acteurs yi nga xamante ne ñu ngi autour exposé bii nii am na ci ñoo xamante ne miin nañ fi sama kanam wala mos nañ gis ma jëflanteeg ñoom ci wàllum wàllu woowu notamment ci élevage bi euh, félicité tamit ndokkeel bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoo organisé salon bi ndax gis naa ne saa yu ñu fi ñëwee dañuy gis ne que amaat na innovation par rapport atum daaw te sous ce rapport là je crois que xam naa ne innovation dina continuer am parce que défi la sénégalais kuy relever défi la problème yi am yëpp boo gisee résultats yi nit ñi di def nga xam ne ay nitu ay nit ñu nitu ay jàmbaar lañu ma bëggoon rek euh, félicité tamit ministre bi parce que xam naa ko gis naa nu mu jegee ñi nga xamante ne ñooy acteurs yu mu war a yu mu war a bokkal liggéey gi nga xamante ne moom laa ko sant te wóolu naa ko ndax loolu moo tax ma dénk ko ko département bi nga xamante ne département bu am solo la maa ngi doon wax sànq ne première fois ma koy gis fekk ne nekk na ministre ba pare premier conseil des ministres laa ko nuyu nekk xanaa yooy yaay monsieur Diagne mu ne ma waaw te mosuma dégganteeg moom téléphone à part après après sax dégganteeguñu téléphone dañu daje rek conseil des ministres mais li ma am ci moom mooy consultation à travers premier ministre ak CV ak recoupé ay témoignages yu bare bare bare ak consultation bi nga xamante ne premier ministre def na ko ci. te xam naa ne politikul te santuñu ko mu politique kon lu ñuy xaar ci moom mooy Sénégal dafa am problème boo xamante ne bu ñu ko réglé. régler lu bari ci suñu problème waaye buñ ko réglé wul duñu mën a régler benn problème mooy xiif mën a lekk ci loo xamante ne yow da ngay béy di dunde di dunde loo béy waaye bu ñu weeree ne rek bu ñu bëggee lekk loo xamante ne balaa ngay mën a def dara di nga lekk ba pare weer ko ci fokk ñu dem ci bitim réew jënd ji te waa bitim réew mën nañu comme nañ ko defee daaw jékki-jékki ne jaayuñu kon mënuñoo moom suñu bopp ci moomeel suñu bopp bi nga xamante ne moom la ñuy ut wa rawatina ci wàllum mën a mën a xiif lekk konti sa bopp mu wóor ma ne nag que ci anam yii ministre bi di tra di liggéeyee te mu nekk koo xamante ne mbéy daf ko neexoon ba mu jël alalu boppam dugal ko ci ak ni nga xamante ne man yàgg naa fi ñëw génn ci foire bi ne pourtant suñu solution solution problème yépp mu ngi fi xanaa nguur moo ko desee fulaal yaakaar naa ne sama politik, boleh kok denk ko koo xamante ne mën na liggéey bi mu dem di waxtaan ak ñoo xamante ne solution mu ngi ci seen loxo man am naa yaakaar gu mag ne loolu ko boolee résultat yi ñuy dinañ ko am te dinañ ko am ci mbéy mi dinañ ko am ci transformation tamit parce que boo visité stand yi nga xam ne ay jàmbaar dëgg ñoo fi nekk te lu ñuy jot a def rek wane na ku leen ku leen gunge ci lu ñu soxla dinañ la jox yow li ngay xaar ci ñoom kon ci tànk yooyu lañ taxaw ren gii bu ngeen xoolee am na ñett mbir yoo xamante ne lu jara taxaw seetlu la mooy li ma njëkk a wax dem nommé koo xamante ne nommé woo ko parce que da doon politique kese mais dañ ko nommé parce que sax du politique waaye dafa nekk loo xamante ne daf ko xam bu koy def mu doon loo xamante ne passion la d'abord au-delà du fait que dafa bëgg a jëriñ réew mi deuxième bi ci topp mooy jël toftal ko benn secrétaire d'État ne ko lépp luy encadre paysan yi coopérative yi ak développer coopérative bi moom lañ la dénk mu ñëw di feelu si ministre bi nga xamante ne moom la ñu dénk wàllu mbéy mi muy changement institutionnel important bi ci tegu mooy ñu ne gannaaw loolu ren la ñuy door def suñu première campagne agricole donte bu ñu toogee yàggul ñu ñu def ko parce que en moins de deux mois lañ ko def indi nañ innovation boo xamante ne tax na engrais ren lu mu doon jar daaw wala ñett ak yi weesu ren lay gën a tuuti ci njëg te leen ren lay gën a bëri ci li nga xamante ne moom lañu nar a teg sur le marché jox ko béykat yi ci wàllum engrais waaye ñu ne nag muy engrais gi muy ji yi dañ ciy boole arme arme bi ren ak gendarmerie pour que mu bañ am ñoo xamante ne dañ ko dañ ko téye ci yoon wi ba mu tax du egg ci béykat yi ñu ne li ñuy dimbalee béykat gi dafa war a dem ci béykat bi béy ci tool wi waaye warul am kenn koo xamante ne dafa nekk intermédiaire ci digg bi téye ko ba ba du egg ci béykat parce que asi ah, boo ko defee résultat bi ngay xaar ci terrain bi dafa am parce que li nga doon war a def ci terrain pour am résultat boobu eggu fa kon changement yi teg ci man sant ko ne ko demal waxtaan ak acteurs yëpp nga jël temps bi war nga bañ a déglu rek say service waaye nga déglu ñu nekk sur le terrain am jafe-jafe nga laaj leen naka la ñuy saafara seen jafe-jafe ñu wax la seen pexe parce que ku nekk ci tool am jafe-jafe ne lii bu dañoon sama tool du ma am lu may jooy kooku moo gën a wóor a déglu ku koo xamante ne dafa toog ne bind naa lii laa yaakaar wala lii laa liir wala bu ñu demee ci tël dëkk looloo fa am parce que terrain bi moo gën a wóor loo xamante ne egg jógewul ci terrain bi ñu ne leen nag nañu réformer la loi sylvo agro agropastorale mais ñu def ko dans une approche de participatif maanaam ñëpp wax ci mu tenir ay réunion dem seeti ji nit ñi te xam naa ne ku ku nar a wàcc ci terrain bi la parce que commencé na ko te ko bàyyi waaye ki mu ko toftal tamit loolu laa ko sant xamaat na ci taxaw bu ñu dawalee at toogaat tëggaat suñu budget defaat lu ñu am yéene def ci mbéy mi bu ñu toogee yi nañ xam ndax ñun ñu ngi ci yoon wi wala nekku ci yoon wi bu ñu nekkee ci yoon wi ñu gën ko baral bu ñu nekkul ci yoon wi ñu gën a joyanti pour tegu ci yoon wi te baral tànk yi parce que sénégalais yi loolu la ñuy xaar ci ñun te yàkkamti nañ trop parce que jafe-jafe yi tar na kon maa ngi leen di sant di bu baax a baax di leen gërëm di leen wax mbégte gi ma amoon nag ci ñëw fii te am naa yaakaar ne bu ma ñëwaatee déwén incha allah dinañ am ay jéego yoo xamante ne def na ko def nañ ko ci euh, accompagnement gouvernement bi ak euh, nguuru Sénégal yëpp salaamaaleykum wa rahmatullah